waaw ah, comme ni ngeen ko gisee fii ci euh, wetu pont de l'émergence nemmeeku nañu ni bi taw bi ñëwee dafa indi ay jafe-jafe taw bi nag euh, comme niñ ko gisee ñun ñëpp dafa xaw a am doole parce que ñu ngi enregistré juróom-ñetti fukk ak ñeent ci ay millimètres ci taw ci espace boo xamante ni daanaka mën nañu ko xayma ci waxtu ak genn wàll bi loolu amee donc fii ci wetu port de l'émergence euh, une partie autoroute bi daanu mooy euh, chaussée bi parce que ndox mi dafa jaar ci suuf bi ñu ko waxee très rapidement ñu sécuriser site bi créer benn euh, système de déviation pour que oto yi jógee Padoua war a jëm côté Léopold Sédar Senghor ñu mën a jàll sans jafe-jafe alors entreprise bi nga xamante ni moom moo yor liggéey bi fekk ngeen ko fii sur place taxaw na pour euh, tàmbali léegi léegi liggéey bi parce que bëgg nañ balaa journée bi jeex liggéey boobu mën a pare pour que circulation bi mën a reprendre euh, fi nga xamante ni moom mooy ci autoroute bi à hauteur euh, pont de l'émergence. waaw maa ngi lay Babacar Senghor maay directeur Ageroute Dakar tey ñu ngi fii au niveau du pont de l'émergence may am benn précision bu may apporter rek mooy que ne pont bi Euh, dara jotu ko euh, mi ngi fii fonctionnel amul xar-xar amul toj-toj amul dara euh, damay wax rek ne y a deux semaines de ça am na ay travaux yoo xam ne entamé woon nañ ko si cadre projet BRT muy ay conduites yoo xam ne dañ ko posé dañu daggoon autoroute bi pose ko fa pour mën a soulager ak récupérer ndox yi nga xam ne mooy jógee depuis depuis Cissesse don dem Grand Yoff doon créer ay inondation Grand Yoff moom la ñu capté maintenant pour indi ko si bassin bi nga xam ne moo nekk suñu ginnaaw Euh, travaux yi nag dañu defoon traversée de chaussée mu desoon ay travaux mu desoon ay ay ay travaux yoo xam ne dañ confortatif lañ koy wax pour mën a sécuriser tout autour des des tuyaux malheureusement travaux yi jotuñu ko woon a pare ak taw bi tey ak quantité bi ñu am tey moo waral mu créer ay mu gas euh, fi nga xam ne fa ndox bi waroon daje da euh, màbbal moitié tali bi waaw te gis nañ ne aujourd'hui équipe bu Ageroute yi ak équipe yi fi nekk yëpp mobilisé wu nañ pour que travaux yi nga xam ne mën nañ ko réparer ñu mën ko réparer tey tey tey et que demain incha allah ñu mën a ubbi circulation bi mais également li mu laaj pour ñu mën a sécuriser renforcer euh, pour éviter li ñu dal tey mu dalaat ñu parce que tey première taw la rek ñu mën a jël les dispositions pour que ëllëg yu mel nii mën ñu bañ a bañ bañ a bañ ñu dalaat e damay wax ne rek toutes nos équipes sont mobilisées pour que vraiment tey ak le préfet euh, ñu mën a jeexal ces travaux am na un plan de déviation boo xam ne avec l'appui du préfet euh, daf nañ ko mettre nañ ko en œuvre et ça permet au moins tey en tout cas circulation bi mën a continuer dina mettre tuuti nag parce que euh, autoroute bi li muy jël si trafic dafa bëri mais rassurer population yi rassurer ñëpp que ne incha allah fii ak euh, tey ci guddi travaux yi dinañ ko boucler jërëjëf ok. Oh, écoutez, on est au niveau de l'échangeur de l'émergence. Déjà, il faut que qu'un démenti puisse être l'échangeur en tant que tel n'a aucun problème. Aujourd'hui, l'échangeur est intact, euh, fonctionnel, et il n'y a pas eu de casse ou de coupure là-dessus. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a deux semaines de ça, l'information avait bien été véhiculée. La Géroute, à travers les travaux du BRT, avait posé un dispositif d'assainissement pour récupérer les eaux depuis CICES et les capter les drainer au niveau du bassin de le bassin que vous voyez à côté qui est le bassin de l'échangeur de l'émergence. Malheureusement, il y avait des travaux confortatifs qui n'avaient qui, qui pas été achevés et avec le volume d'eau et la pluie plus enregistrée ce jour, euh, il y a eu quand même un affouillement à ce niveau-là qui a causé la, la coupure de la moitié de la chaussée. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, toutes les équipes sont aujourd'hui mobilisées pour que les travaux de réparation et de reprise puissent être euh, réalisés aujourd'hui même. Donc euh, c'est un événement malheureux, mais en rapport avec le préfet, il y a un plan de déviation qui est aujourd'hui, qui est en train, qui mis en place pour faciliter et assurer la continuité de la circulation, tout en nous permettant, nous, de fermer le, cette, cette, ouverture et sécuriser aussi l'emprise pour les, les pluies à venir. Non, non, c'est pas, c'est pas que c'est c'était pas prévu parce que les travaux qui ont qui ont été réalisés dans ce cadre. C'est des travaux préhivernaux, euh, préhivernaux. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, pour capter et soulager Grand Yoff, le BRT a mis en place un système d'assainissement en diamètre de de de de 2 mètres de diamètre. Euh, cette eau, il fallait traverser l'autoroute euh, là où on est pour le raccorder sur le bassin qui est à côté. Et comme je dis, c'est des travaux qui ont été faits il n'y a même pas deux semaines de ça. Il fallait effectivement l'accompagner de travaux confortatifs. Malheureusement, ces travaux-là, on n'a pas pu les faire à temps ou bien les terminer, ce qui a causé aujourd'hui cet effondrement, en tout cas d'une partie de la chaussée. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, toute l'équipe euh, de l'entreprise, de la mission d'assistance et du BRT sont mobilisés pour que ces travaux-là puissent être terminés aujourd'hui même et au plus tard, cette nuit ou demain matin, la circulation puisse être... Euh, bon, il a pas, il d'inquiétude parce que je pense que ce qui a causé même l'effondrement, c'est le volume d'eau important qui est capté à travers cet ouvrage. Tout le monde connaissait un peu les problèmes que Grand F subissait pendant l'hivernage parce que toutes les eaux de pluie depuis Cissesse convergeaient vers Grand F. Aujourd'hui, le BRT a, a, a, a, créé un dispositif pour capter ces eaux et les ramener ici. Effectivement, c'est un volume d'eau important qui a fait qu'aujourd'hui, il, il, il y a cette problématique. Mais qu'il se rassure, je pense qu'on va faire les travaux très rapidement pour ouvrir euh, le, tra le, le, trafic, euh, euh, pour ouvrir la circulation et puis faire les travaux confortatifs assez, assez rapidement. du, du, du tout, loin de là. C'est des travaux, on est, en, on est encore en phase travaux, c'est des choses qui arrivent. La preuve, aujourd'hui, l'entreprise, elle est mobilisée tout de suite. Et l'entreprise est en train de travailler. On aura d'autres soucis parce que c'est des travaux qui ne sont pas encore terminés et qu'au fur et à mesure, on va corriger, on va améliorer. L'objectif, c'est qu'au bout, les populations puissent être soulagées. Mais